daarul xasanaat émission bi am ci rajo bi day yokk pas-pasan gëm daarul xasanaat émission bi am ci rajo bi day yokk pas-pasan gëm daarul xasanaat émission bi am ci rajo bi day yokk pas-pasan gëm xas daan bu tuuba amoon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 di leen balu àq te di leen baal waaye di jiital ci nuyu boobu rek ak ziar bi euh, sunu sang sunu sëriñ ki fi toog jotaayu Cheikhul Khadim ñaanal ko fan gudd ak wér gu dund ba yëgale yéeneem ci ku tedd ki waaye ñaanal jullit ñëpp rawatina taalibe yi ñu ànd ci liggéey boobu te sëriñ bi nangul nu ko noo ngi amaan mbégte rek ànd ak yéen ci émission Daarul Xasanaat fii ci rajo Xassida online Touba monde bi te kaddu gi bàyyi ko fii ci Touba Milano ci studio Sëriñ Muntaxa moom Sëriñ Basiru Mbàkke Eh, ñoo ngi nuyu sunu jëwriñ Cheikh Ibrahima Khalil waaye di nuyu ak sargal ki nga xam ne rek moom lañ àndal ci xarala gi muy Baye Fall bu rajo bi eh, tey ji nag Daaru Xasanaat dafa amaat gan muy gan goo xam ne duma ma gan sax ndax moom ci kër gi la bokk waaye émission Daaru Xasanaat di ko bége eh, di rafetlu lool xam-xamam ak ak jotam ndax jamono ji xam ngeen ne jot yombu ci waaye moom de bari na loon jàng ci moom muy maanaam yekk naa ci moom lañ ko jànge loolu moom ma sha Allah illa ma alim naa ndax foo ko tudde rek boo ne euh, sëñ bi foo toll ci émission sang mun la jekk naa kon ñoo ngi koy ñaanal tawféex muy Serigne Mor Sylla Taïf ma teg ci nag ak Bayla kon ni may def rek mooy jox sama kàddu Serigne Mor mu nuyoog mbokki taalibe yi mbokki jullit yi mbokki auditeurs yi bu ko defee rek ñu tàbbi ci waxtaan wi nga xamante rek bëgg nañ ko seq ak moom muy tomb bi sunu sang sunu Serigne sunu wasila sunu yaakaar Cheikh Ahmadoul Khadim kon Serigne Mor euh, tafadal alhamdulilahi wasalatu wasalaamu ala man ursila rahmatan lil alamin sayidna wala muhammadil makin wa ala alihi wa sahbi dawi ridwani wa tamkin salaamaaleykum mbokki auditeur rajo xasida online touba monde bi ñoo ngi am mbégte lool ci dalal gi nga xam ne sëñ Ablaye Diop daarul xasanaat dalal nañ ko muy dalal boo xam ne nii nag aw yu dong lañ ciy jëlee àdduna ak alaxira yàlla nañ ko bokk ak taalibe yëpp sëriñ Ablaye ak ah, jërëjëf Serigne Mor amin ñoo ngi sant bu baax ci ñaan yooyu eh, di la jaajëfal ba wax dëgg yàlla ni ma ko waxee rek ci sa jot ak wax dëgg yàlla rafetlu lool sa sa xam-xam te li ma koy waar faral di waxee rek jubluwuñ ci rek lu dul laabire ak soññante ci sunu biir ñun mbokki taalibe ñun mbokki julit ndax kat eh, alxuraan da koy wax naan fàttali ndax fàttali dana jëriñ ci gëm eh, kon ñun dugg rek ki solos émission bi ngir njëkkanteeg waxtu wi ku tedd ki nee na baraan na ku dugg ci bàmmeel boo ko laajee lu tax ñu di la caw mu ni la lu ma waxoon ci àdduna la daal ni waat baraan na ku daaju ci biir sawara boo ko laajee lu la fi indi mu ni la lu ma lekkoon la loolu moo di ay waxam radiyallahu taala anhu ma baamuwaat ko kon ku tedd ki nee na baraan na ku dugg ci bàmmeel boo ko laajee lu tax ñu di la caw mu ni la lu ma waxoon ci àdduna la baraan na ku daaju ca biir sawara boo ko laajee lu la fi andi mu ni la lu ma lekkoon la loolu moo di tomb tey bi ñu fas yéene ànd ak Serigne Mor Sylla Taif ak laa ci émission bi Darul Xasanaat ngir soññante ci laabire ci waaye wax dëgg yàlla euh, am ci taw feexuk dégg wax yi ku tedd ki ndax noonu ma ko daan waxee tomb yi mu daan tombal ñam jamonanteel la waaye di ci bàyyi ñi nga xamante ne ñi ngi wara ñëw ci kanam sëñ Mor kon dégg nga tomb bi mu mel ni ñaari pàcc la muy benn gi pàcc bi mooy lu jëm ci kàddu maanaam làmmiñ di ay wax beneen bi mi jëm ci lu nit di jëfandikoo muy lu mel ni ak lekk kon xam naa li ñuy njëkk def rek mooy sëñ Mor tomb boobu nan nga ko gisee ci wàllu kàddu ak nan la demee ci doomu aadama Euh, jërëjëf Serigne Ablaye Diop Daarul Xasanaat ñoo ngi am mbégte rek ni nga ko waxee ndax yaakaar ki nag lu rëy la Serigne Ablaye ndax bu Serigne tubaa waxee ne di laabire ñu baax ñi moo ëpp ab yool dem di jihaat te kon Daarul Xasanaat kërug yu rafetal yi te alxuraan tim dégam ci wax lañuy ñuy waxtaanee mën nañoo njëkk wax rek ay alxuraan bi yàlla naan wa qulu linnaasi xusnan wax leen nit ñi lu rafet di leen wax nit ñi lu baax waxkat Serigne Ablaye dana tax ñu jël nit ko ci saafe waxkat dana tax ñu jël nit yëkkali ko yëkkati kawee misaal am na koo xam ne nii kaabu lañ koy wax bi nga xamee ne dafa xas yonent bi ci wax sallallahu alayhi wa sallam yonent bi dafa daganal deretam ne nañ ko rey kon wax lu jar a xel la kaabu mii bi mu waxee rek xas yonent bi wax ju ñaaw yonent bi dafa daganal deretam rakkam moo ko dimbale ne ko yonent bi daganal na sa deret léegi ni ngay def mooy da ngay ba dem ba moom te kenn du la gis nga maskawu nga tagg ko kaabu bi mu demaatee ci yonent bi maskawu ba yonent bi xàmmeewu ko mu tagg yonent bi yonent bi dafa sumi mum solol solol ko kon loola lu jar a bàyyi xel la mbokk kon wax dafa am solo lool yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na nit kat dana dugg juróom ñaar fukki ci sawara ngir baat boo xam ne nii sax da koo wax dong te sax mën naa am jublu ci sax lu aay wala xamu ci ne lu aay la kon wax mi ngi noonu te wax kat li ci ëpp solo sëñ Ablaye Serigne Touba nee na kaddu la ci ëpp solo muy laa ilaha illallah Sëriñ Tuubaa moo ko wax de wa lafsu laa ilaha illa allahu muhammadun arsalahul ilahu afdalu man nataxu man yaskuru fa kullu man ankaruhu fa yaxsuru loolu Sëriñ Tuubaa muy tudd tudd yàlla laa ilaha illa allah muhammad rasulullah mooy li gën a màggalu nit du tudd nee na képp koo xam ne ko da nga kon wax mi noonu te ki nga xamee bi Serigne Touba di dem ci géej gi te yaakaar naa tool nañ ci foofu fi ni nga ñëwoon di laaj Serigne Touba ne ko damaa bëgg nga dénk ma dana ko laa ilaha illallah muhammad rasulullah kon lépp ci ay wax la ko dénk kon wax mi ngi noonu Serigne Touba di bind ne ne yow murid bi kat na nga xam ne lépp loo man di baral baril sikkar moo jigan tudd yàlla gis nga kon wax ni mu baree njariñ waaye tim ni nga xam ne tim bu baaxul tim noonu la baree ay lor kon gis nga wax ni mu mën a yàqee ni ko Serigne Touba waxee rambaaje ci wax lañ koy def Serigne Touba nee na rambaaj nag foo woo summun taxtul la wax posen la boo xam day rey yaakaar naa nag luy rey yaakaar naa yàlla noonu la ko waxee ci alxuraan bu leen rey kenn bu leen rey seen bakkan la ci mooy di sosal nit loolu tim ci làmmiñ lay jógee ci wax lay jógee te Serigne Touba nee na kat ñuy bàyyi wax lu dëgg moo gën ñuy taxaw guddi gu nekk di fanaanee julli la ci def mooy jëw lool lépp dem ci wax lay jógee alxuraan kat nee na wala yaxtab baadukum baadan a yuhibbu ahadukum an yakula laxma axiihi mayitan fa karihtumuhu nee na yàlla nee bu kenn jëw kenn ci yéen yéen jullit ñi ndax kenn ci yéen bëgg naa lekk ndawalu moroomam mu dee ba pare mu jël ko di ko la lekk loolu de kenn bëgg ko képp koo xam ne nag bëggoo sa mbokk mu faatu nga dem sulli ko di lekk aw yaramam bul jëw sa mbokkum julit kon loolu ci mbokk yi lu jar a bàyyi xel la Seydina Ali karamallahu wajhahu mos nañ koo fekk suba teel mu jël làmmiñ xëcc ko ba mu ciy jël paaga ne da koy dagg ne kii de lu yàqal nit moo ko yàqal kii lu yàqal nit moo ko yàqal kon mooy làmmiñ Sëriñ Tuubaa am na fu bind ne juróom-ñaari cër yii de bu ci nekk daa jàkkaarloo ab bunt ci sawara te juróom-ñaari kër yooyu bokk na ci làmmiñ kon làmmiñ lu jar xel la sëñ Ablaye kon ñëw joxaan la kàddu ba ci jërëjëf. ak sa jërëjëf euh, Serigne Mor euh, wax ji wax dëgg yàlla leer na euh, mu mel ni rek kon daanaka jikko bon yi nga xamante ni lislaam ŋàññ na ko dafa mel ni li ci ëpp rek kon ci làmmiñ lay lay tukkee mu demee ni lu mel ni sos lu mel ni rambaaj lu mel ni jëw lu mel ni wax lu dul dëgg. ak yooyu yëpp waaye sëñ Mor tey jii bu ñu demee ba euh, ku mën a jug rek rawatina sunu yoon wi gis nañ ni bu yàggut euh, ay nit danañ jug attaque yoon wi te it seen làmmiñ rek la yor jaar ci média yi di ci xëpp seen loo xamante nii lu bon la ngir ñaawal nee na dañuy jéem a ñaawal yoon wi wala liggéeyu sëriñ bi loolu it ban taxawaay lañ ci war a am sëñ Mor a ah, jërëjëf sëñ Ablaye yaakaar naa laaj bi moom laaj la boo xam ne nii fi nga ko laajee sax foofu la waree dëgg-dëgg ndax suñu jullit ñi adduna bi yoonu murit mi ngi dund nag ay jamono yoo xam ne nii metti na lool ci murit yi te war nañoo seedaat suñu bopp waaye ki jaaxle ba amul fu mu jëm na delluwaat ci waxi Serigne Touba Serigne Touba kat bind na ci Masaalikul Jinaan mbokk yi ne wala takun multafitan li kulli man raaytuhu yusbu shaykhan fi zaman ndax kat Serigne Touba nee nañ daal wax ne yoon wi kat ñag nañ ko waaye li koy yàq nag ci biir ñag bi lay jóge loolu mbokk yi lu jar xel la kon ci Matlabul Fawzayni aar nañ dëkk bi waaye nag bëkk bala la ca nekk ba yàgg muy yàqoo ci biir nag loola mooy saako pomme de terre boo xam ni bu nut da nekk mën naa yàqaale lu bari kon jullit ñëpp war nañoo jël seeni ngànnaay war nañoo taxaw jàmmarloog noon bu mag boobu di saytaane ak bakkan ak bànneex ba duñu mën a yàqal ndax Sëriñ Tuubaa nee na ñetti noon yooyu ku leen fetal daane nga noon yu bon ya te li ci ëpp nag loolu rek la Sëriñ Tuubaa xamoon na lii lépp ne mi ngi ñëw gis nañ attaque yi ñuy attaqué yoonu murit gis nañ sax ci biir murit yi xam ne nii dañ ki wax ay wax yoo xam ne nii wax dëgg yàlla doonul loo xam day defar ak murit te wala bi dañ naan ku yokkul yaa wàññi kon loola Sëriñ Tuubaa bi na ko bu yàgg ne isbaana jahran annama shuyuuxu haada zamaanu julluhum fuxuuxu wér na kat Sëriñ Tuubaa nee na na ci lu leer leer ci lu amul benn nëbb wala secret ne sëriñ si ëpp ci jamono ji kat ay fiir rek lañ lu tax Sëriñ Tuubaa wax ko mu ne képp nag koo xam ni ci yi may bëgg a wax bokk nag moom Serigne Touba nee na ak fiir nga waaye doo ab Serigne képp koo xam ne ni saa buñ taggee ab Serigne bu mel na yow wala ab Cheikh bu mel na yow da la lay la rek mooy kiyaan ak soxor ak bëgg rek daraja bëgg honneur bëgg personnalité waaye saa buñ tuddee ab Serigne wala Cheikh ci dulul noonu ci safaan ba. dañuy gis nga bëgg donte sax dañ ne diw mii de ñëpp dañ ne baax na waaye buñ ko xasee rek sëriñ boobu bëgg walla wala seex boobu bëgg sëriñ boobu kat wala seex boobu kat sëriñ Tuubaa na du ko bëgg loolu dul rek dafa bëgg rek moom dong nag moom la ñuy tagg moom la ñuy tudd ci mbindeef yépp ci misaal bu doon ab taalibe bu ñàkk solo bu mel ne Mor Sylla Taïb bay Bayla bi ko suñu Ablaye Diop di waxe bu ñu tuddee keneen rek mu mer waaye dafa bëgg daal moom tagg ak sant wala ñu koy sant wala ñuy gërëm kenn daal moom dong lañ ci war a jiital moom rek lañ ci war a mujjee moom la ko Serigne Touba waxee nee na nag fépp fu dem ci kudul moom ak kañaan rek moo nekk ci biiram lal waaye Serigne Touba nee na kooku de alkane dal na ko noonu la waxe de tabban lahu fa innahu law xafada صلاح أمره فقط مجردا لسره حصوله أيس قدت ولا يبالي بارتهاله أبدا nee na kooku musiba dal na ko alkane dal na ko ndax kan moom bu fekkoon ne dafa jublu rek man daal nañu naa nekku sëriñ waaye nag ku nekku sëriñ baax na loolu sax mu tane loolu sëriñ Tuubaa wax waaye nag moom ak soxor la ciy indi moom daal man doomu naa nekku sëriñ naa nekk personnalité naa nekk ministre naa nekk député naa nekk lii waaye keneen ku ko nekk ku nekk rek bu ma soñoon moom lu bon rek la ñuy wax ci moom ak lu ñaaw loolu Serigne Touba nee na loolu ak soxor la kooku nag du ab Serigne waaye ak fiir rek la Serigne Touba nag nee na suñu Ablaye Diop Darou Assana Serigne Touba nag nee na képp koo ngeen gis kon xam naa ñi jàng te wax nuñ koy waxee kii nag ku peese ku peese daal ku mel nii Serigne Touba nee na ba nga xam ne résultat bi nga am lii la lii ma wax nii nee na kooku Serigne Touba nee na bàyyi mbiram moom. booba sëriñ moom ne rek fenn booba keex booba kilifa moo xam lu mu mën di doon kooku moom sëriñ Tuubaa nee na na ko rek fële ndax kuy nëb kuy mujj kuy kuy rëbb meññitum àdduna dong la fa kullu cheikhin hakaza fa innahu min faahidil utaami fatruk sha'nahu fatruk sha'nahu nag sëriñ nee na sëriñ Tuubaa moom nee na kooku moom bàyyil ay mbiram yëpp la wax kooku moom bul fa bu ko faaleeti sax moom la sëriñ Tuubaa wax kon sëñ Ablaye ni ngi yem foofu joxaat la kàddu waaye laaj moom bu jar a waxtaane la ndax yaakaar naa fi ni actualité la fi ni jërëjëf waar xam nga li nga ci wax rek ni maanaam sëñ bi ñag na ñag bi ba amut luy jugee ci ginnaaw ñag ba di dugg ci biir ñag bi waaye buñ demee nag ba li war a rootoor bi lay juddoo ci biir tool bi bu boobaa nag jafe-jafe day daal di am xam nga dafa doon da doon doy sëkk rek attaques yi nga xam ne ñu koy attaqué à l'extérieur maanaam ñi nga xam te ni wax dëgg sax kenn xamu leen ci yoon wi ñu dikk di wut bëgg wut mbooloo tax ñu bëgg a déstabiliser mbooloom sëriñ bi waaye bu ñu demee ba léegi ba tey jii koo mën a wooyee kilifa wala nga jox ko référence ni kii kat luy ñoŋal yoon yi moo ko soxal euh, tey jii bu demee ci euh, utiliser médias yi. utiliser réseaux sociaux. di ci ŋàññi seen moroomum sëriñ moo xam ne ñoo bokk tool bi ñuy liggéey. Mm-hmm. ba jàpp ni yow li nga nekk comme ni nga ko waxee li nga nekk mooy dëgg la keneen nekk te tudd ko sëñ bi du dëgg. Mm-hmm. te damaa jàpp ne am na waxtaan woo xam ne waxtaanu biiru néeg la du waxtaanu pénc. dëgg la dëgg la bu wér fekkalit ñu ci bari say doomi bàyyi lañ wala say rakk lañ mu mel ni euh, àdduna daal jiital nañ ñenn ñi. ba tax ñu jël kàddu yu ñaaw di ko jàllale ci kaw rajo yi ak télévision yi nit ñëpp di ko seetaan di ci am luñ ci wax ak commentaire te nga mënoon a dem ci biir néeg waxtaan ak bu dee jàpp nga ne ngay def du yoon wala bu dee jàpp nga ne li ngay def demewut ni ko sëñ bi bëggee te ngeen bokkuk deret léegi kon taalibe buñ jotee ci yoon lan lañ war a def euh, dañoo war a léegi ci ayab yaa ayyuhal lazina aamanu in jaakum faasiqun bi naba'in fatabayyanu dëgg la dëgg la wala dañoo war a dégg gëm rek ndax yaakaar naa ni alxuraan moom lu mu andi rek ci loolu lañ war a topp te léegi danañ la ko taaralal taaral goo xamante ni da ngay jàpp ni lii li ñu wax dëgg la te léegi nag doo leen mën a génn ci yoon ndax ni nga ko waxee ay kilifa la ñu doon loolu ko ramale sëñ Ablaye lu doy waar la ndax loolu kat li nga wax euh, bu demee ba nga xam ne kenn xelam delut loolu kat li muy andi liñ naan faw daa lay andi ci yoon wi te loolu moom la ñuy wax loo xam ne day indi da yàq am réew waaye day yàq aw yoon da yàq ab tarixa te lool day def ba nga xam ne kat lii Sëriñ Tuubaa bindoon sëñ Ablaay nit ñi kat dañuy dem ke dellu ke loola ci Masaalikul Jinaan te kon dana xaw a doy waar lool loolu nag des na waaye kat Sëriñ Tuubaa am na fu mu bind ci Masaalikul Jinaan ne in lam tulaaqi muslihan fal taktafi bima bihi nafsa xiyaaru salafi nee na boo demee nag ba gisoo kenn koo xam ne nii nag sëriñ la wala seex la wala koo xam ne nag ci yàlla rek la lay jëmee nee na kon nag yow delluwaatal ginnaaw topp nag la nga xam ne ñu baax ñu loolu bàyyi woon hmm. li ñu fi bàyyi woon kat ñooñu nee na mooy sariya yonent bi moom mi nga xam ne moo matale hmm. loolu nag excès guñ ca waaye liy ruur nag ci ñag bi lay jógee loolu jar naa bàyyi xel baax suñu laaj jërëjëf jërëjëf sëñ Mor ñu fàttali ni yéen ngi ci émission Daaru Xasanaat fii ci rajo Xassida Online Touba Monde bi te yi ñu dalal sëriñ Mor Sylla Taif euh, tomb tomb bi ñuy jàng rek muy tomb sëriñ bi mu wax ni baraan na ku dugg ci biir bàmmeel boo ko laajee lu tax ñu di la caw mu la lu ma waxoon la ci àdduna waaye baraan na ku daaju ca biir sawara boo ko laajee lu la fi andi mu ne la lu ma lekkoon la waaye ba tey sëñ Mor boo xoolee suñu jamono ji xam nga lii ñu waaye journalisme te ñenn ñi nee nee nañ maanaam méccem gor la maanaam dañ naan c'est un travail de noble ñoom loolu la ñuy wax ci nasaraan waaye tey jii bu xoolee bari na ci ndax damay wax ni ni alxuraan di waxee rek wa mina naasi xëy na am na ñoo xamante ni. dëgg la euh, nañ koy nañ ñuy defee métier maanaam goree di dëgg la waaye ak ngor amatu fa ndax koo xam ne buñ la fayee buñ la fayee jox la xaalis ger rek lu la neex mën nga ko wax ci derub doomu aadama te doo seetlu ba xam lii ñu lay wax lu dëgg la am wala tey ndax kàddu sax dafa war bu jugee nga xool lan la war a a mën defar ak law lan la war a a yàq bala nga ko wax sëñ Mor loolu it loo ci mel ndax euh, bu dee dañoo nekk ci euh, jamono joo xam ne télécommunication dafa développé ba euh, bu ñu waree dal ci réew wala bu ñu waree dal ci état wala bu ñu waree dal ni gorus yàlla la soo xamante daa wéy ci dundam ñu bëgg a yàqu dundam ci média yooyu la ñuy jaar ñu nit nan ban taxawaay lañ ci war a mën am waaw ah, jërëjëf sëñ Ablaye taxawaay bi ci taxaw rek mooy delluwaat ci boroom xam na ñun ay jullit lañ yàlla nag wax na ci alxuraan ne ñi nga xam ne dañuy fexe ba jullit ñi di teg ay baat yu ñaaw ci jullit ñi ñooñu suñu Ablaye Diop yàlla nee na mbugal mu mag mu ngi leen xaar fii ci àdduna ak àlaxira kon képp koo gis muy jël baat bu ñaaw di ko teg ci sa mbokkum jullit musiba moomee du la xaare ëllëg yàlla du ko xaare ëllëg moo ko wax fii ci àdduna ak alaxira la musiba may amee alxasanul bisri di wàll yu mag Sëriñ Tuubaa di def sax tawasul ci moom ci ay xasaayit nee na lépp loo tuumaal nit ci àdduna bala ngaa faatu bala ngay faatu sax dana la natt yooyu ci misaal Sëriñ Ablaay nga tuumaal ne ni diw day taxawaalu diw day njaaloo te amu ci dara lu la leer da nga ko koo sosal rek diw dafa lekk xaalis jàmbur te da nga ko koo sosal rek li ngay wax ni ci jiw triant la jiw xamul dara loolu nga koy tuumaale yow loolu daan la dal bu fekkee da ngaa tuumaal nit ki ci day njaalo yàlla dana la natt ba nga njaalo yow moom nga xam da ngaa tuumaal asuma bisri moo wax loolu te wala la Serigne Touba sax day def tawasul ci moom kon loolu lu a xel la bis boobu nga xam ne yàlla nee na yow ma naxtimu ala afwahim wa limu naa aydihim bis ci boobu nga xam ne bu ñëwee gimiñ yëpp yoon wax nii yëpp dañ leen tëj waxloo seen nii tànk ak seeni loxo ku nekk wax la nga doon def bis boobu mbokk yi lu jar a bàyyi xel la te kat bis booba bàyyi du fa jariñ dara doom du fa jariñ dara lu dul fa andi rek bi xal bin salim xol bu leer nañ waaye wax ju bari foofu dootu fa amati lépp dañ ko réglé foofa rawatina nag wax kon wax mbokk yi dañ koy rafetal wala dañ naan wax dañ koy wodd lu jar a wodd la wax jërëjëf sëñ Ablaye. ak sa jërëjëf sëñ Mor loolu leer na lool xam bi yaatu na waaye. jamono ji rek moo xat waaye ba rek sëñ Moor boo demee ci saaru Hujuraat mel na ne suñ boroom day wax ni bu wennu nit di jël ab baat bu ñaaw di ko teg ci weneenu nit xëy na sax nit ñooñee ñuy wax ñooñaa leen gën sëñ bi foofu bu suñ boroom yamoon daanaka waaye bu wenn jigéen lu ñaaw xëy na jigéen ña ñuy wax ñooña leen gën dëgg la dëgg la jigéen la indiwaat waaye sëñ Mor léegi mel ni léegi góor ñoo daq a jëw léegi loolu it noo ci mën a soññee. Eh, dëgg la dëgg la ndax eh, jamono ji moo dem ba nga xam ne. Mhm. la baaxoon lépp dafa mel ne dafa wëlbatiku buñ naan jant bi dana fenkee taw fenku loolu jikko yi lañ wax. Mhm. ci misaal jikko yi lañ wax kon nag la nga xam ne jigéen ñi ñoo ko daan jikkowoo léegi góor ñi ñoo ko gën a mën a yittewoo te lu jar xel la te mooy wax jooju nga xam ne. da koy sëngal nit wala sax jigéen ñi loolu sëñ Ablaye lu feeñ la góor ñi daa dem nañ ba nga xam ne bon gépp fi nii dafa mel ne ñoom sax ñoo ko gën a yor yoroon sax fooy liggéeyloo sax jigéen ngay jël ab secrétaire wala trésorier moom sax ngay gën a wóolu ci góor loolu kon de la mu waxoon de loola wàññi na ndax dane ar rijaalu xawaamuuna ala nisaa xawaamuuna mooy dafa gën a taxaw góor moo gën a taxaw xawaam mooy loo xam day taxaw di luy loolu ci beneen côté la sax waaye xawaaf rek mooy lépp koo xam ne day téye dara di ko yëkkati loolu nag bu demee ba nga mooy téye dara nag far moo feewal ba mënut a téye dara loolu kon mbokk li jar a bàyyi xel la ndax kat bu njëkk jigéen ñi lay xamee woon loolu waaye léegi jamono yàqu na ba góor ñi daanaka lu yàqu lu baree bëri góor ñi ñëw ko yàq rawatina suñ mbokk journaliste yi loolu tin lu jar a bàyyi xel la te mooy aaye boobu nga waxoon léegi in jaakum faasiqun bi naba'in fatabayyanu te mujjub laaya ba li wax mooy dangeen kon bu ngeen ko defee mhm. da ngeen mujj rek mooy rëccu hmm. ndax nit wax na loo xam ni solo na loo xam da nga dem ba ñu woolu ci tribunal nga jël ci avocat sonn say mbokk loolu ci mbokk li jël a bàyyi xel te boo demee suñ borom azabullahi akbar hmm. jërëjëf sëñ kon xam naa ñu dugg ci tomb bu ñaareel bi rek maanaam ci ñaareelu tomb bi maanaam ñaareelu xaaj bi nga xam ne moom itam mi ngi jëm ci eh, ba tey rek eh, ëllëgi doomi aadama fa mu fa ko lii muy def war a mën a mën a yóbbu ndax ñu fàttali tomb bi tedd gi dañuy baran na ku dugg ci biir bàmmeel boo ko laajee lu tax ni di la caw caw mooy ay dóor ci ndaw ku ndey yi nga xam ne xëy na seen baati wala taxul mu leer noonu mu ni la lu ma waxoon ci àdduna la waaye mu ni baraan na ku daaju ci biir sawara boo ko laajee lu la fi andi mu ni la lu ma lekkoon la ku daaju ci biir sawara mooy maanaam ku nu fa daaj rek xam ne ku nu fa daaj moom daanaka daanaka fa naqari jële sëñ Mor kon gis nga ñaareelu tom boobu mu ni baraan na ku daaju ci biir sawara boo ko laajee loolu fa mun la lu ma lekkoon la waaw sëñ Mor ak lekk moom nan la war a mën a yóbbu nit sawara noonu nu demee. Euh, jërëjëf sëñ lekk lu ba jar xel la ndax yàlla ni mu ko waxee ci alxuraan mbokk yi lu a bàyyi xel la da ne kulu washrabu wala tusrifu lekk leen naan leen waaye na bu leen yàq. yàlla bi mu waxee da ne wa ahlallahu al-bay'a wa harrama riba yàlla da ne digal na nit ki nay commerce waaye nag na moytandiku riba lekkatu riba yi nag suñu lu jara bàyyi xel yu araam yi Sëriñ Tuubaa bind na ci ñi nga xam ne dañuy lekk alali nit bu ëllëgee sawara lañ jëm waaye sawar liñ jëm suñu ablaay moo jara bàyyi xel sa sawara loo xam ne lu particulier la ndax sawar soo xam ni ñëpp kooku bu ca demee day dem ba sonal ñam nekkal sawara sax noonu la ko Sëriñ Tuubaa bindee mooy ñi nga xam ne dañuy lekk alal bi araam dañuy lekk alali nit ñi moo xam alali jirim la moo xam alali réew mi la loolu lu jar a bàyyi xel la mbokk yi nekk ci ab dëkk ñu séddale fa ay ceeb ku nekk war a am fukki kilo nga jox ko juróom-ñetti kilo ku dëkk misaal bu doon Dakar ñu ne deux millions wala trois millions wala quatre millions habitants ma nga fa ñu séddale fa ab ceeb boo ci jëlee ñaari saako ceeb wala benn saako ceeb boo xam ne yow loolu nga ko jël quatre millions personnes yëpp ku nekk amel nga ko loolu nag lu jar a bàyyi xel la moo tax Serigne Touba ne ijtanibu aklal xaraami yaa mala falam yadal anil huda mukabbala Sëriñ Tuubaa nee na yéen jullit na ngeen moytandiku di lekk lu araam yéen nit ñi loolu kat ci ak njub ab jéng la ab jéng la ci ak njub Sëriñ Tuubaa ne kon nag na ngeen fexe bay wut lu lew ci waxtu yépp ci lekk lu lew tim noonu la ko Sëriñ Tuubaa waxee nee na bu ngeen ko ne def kat di wut lu lew di lekk lu lew kon da ngeen am ak njub da ngeen am ak topp yàlla tamit iltamisul xalaala kulla saa bi ak lii yabdul huda wa saa noonu la ko Serigne Touba waxee muy lu jar a mbokk yi Serigne Touba nee na biir bii daal na nga fexe bu ci dugal lu araam mukk wala lenn loo xam dafa niru lu araam sax Serigne Touba nee na bu ko ci dugal laa tudxilil xaraama fil batni wala maa fi shubhatun balil xila balil xilla wala wilaa wutal loola rek nga remplacé ko lewut Sëriñ Tuubaa ne fa kullu xalaalan in aradta an tudia allaha wa rasula ya hada al loolu ci Munawwiru Sudur la ko Sëriñ bi nee na kon lekkal fa kul xalaalan lekkal lu lew bu fekkee ne bëgg nga topp yàlla ak yonent bi yow mi xam ne ab topp kan nga Sëriñ Tuubaa kat di lekk lu araam di def lu araam ba pare nag da ngay am lu baax Sëriñ Tuubaa nee na ab dof dong moo koy def laa yanfau al ilmu wala al ibada bil akli al xaraami inda saada xam-xam boo xam ne doo ci def lu baax lu araam rek nga ciy def biir boo xam ne tin lu araam rek nga ciy dugal doo ci def lenn lu baax ah Sëriñ Tuubaa nee na kat du jëriñ dara loraange dong lay andi ndax Sëriñ Tuubaa nee na képp koo xam da ngaa jël lu araam di ca jaamoo yàlla mooy ñi nga xam ne dañuy jouer prix wala ñu jouer dara lu mën di doon ba gañe loola te léwul nga yaakaar nag boo ca defee lu baax da nga am lu baax déedéet boo gañe woon loterie nationale wala lu mën doon wala nga carte ba gañe ko dem jumaay Tuubaa jee nga tabax fa téeméeri sooroor benn yool doo ko ci am Sëriñ Tuubaa moo ko bind ci mun a wéru sudur man bil xaraami abadallaha fala yakunu illa lu araam ku ko jaamoo yàlla da nga koy rëccu te da ngay gën di suufe waaye doo am benn martaba ci suñu borom kon loolu tim lu jar bàyyi xel la ay alxuraan bii may wax sëñ Fallou Mbacké daana wax ne moom noonu la ko daan firee ndax déggum dégg alxuraan suñu Ablaay te mooy man amila saalihan fali nafsihi wa man asaa fa alayha wa ma rabbuka bi zallamin lil abid sëñ Fall nee na man amila saalihan ku tibb tibb bu neex mhm. mooy lekk lu lew falim na si sa gimiñ doom nga fay def mhm. wa man ataa ku tibb lu naqar rek dugal ko sa sa put fa alayha ci sa biir dong la jëm mhm. kon loolu lu bàyyi xel la te mooy saxa bay wut lu lew waaye bàyyi lépp lu araam loolu nag ñun buñ koy wax sax sama mbokkum daara da koy wax ñun tamit ñu koy baamtu wax ci moom moom moo li koy firee mooy man amila saalihan fali nafsihi wa man asaa fa alayha mu ne jigéen guutal sa jëkkër aw yat fa alayha sa doom rek nga koy dóor kon lekk lu araam lu jar a bàyyi xel la mbokk yi Sëriñ Tuubaa nag nee lu araam daal lu lew waaye boo ko amee nag na nga ko jaamoo suñ ndax nee na lu lew moom farata la ci bépp jullit noonu la ko Serigne Touba bindee ci tasawudu sixaar ne wa talabul xalaali fardun yantami li kulli muslimin bi xayri waami sàkk lew Serigne Touba nee na farata la ci bépp jullit ci lu amul werante amul am lënt kon jullit bu nekk war nga sàkku war ngay sabablu saa boo xëyee war ngay sàkk lu lew ndax Serigne Touba nee na kat loolu kat nag boo ko wutee nag ba am ko nag loolu ngay sàkku nag na nga fexe nag ba bu ko sànq ci loo xam ne nii day lu araam na ko sànq ci loo xam ne law lay doon noonu la ko Sëriñ Tuubaa bi wa in wajadtahu fala tubayyaa fa man yudayyil xalaala doyaa nee na saa boo wutee alal nag dagam farata la ci dilit boo ko nag ba am ko wala nga am ca dara Sëriñ Tuubaa ci am na nga fexe ba bu ko sànq ci lu dul lu lew ndax nee na képp kuy sànq kat lu lew ñu sànq la nañ fexe ba buñ sànku nag suñ bopp ndax yàlla kat bi ñuy wax ci alxuraan da ne qu anfusakum wa ahlikum mooy moytandikul seen bopp moytandikul seen njaboot sawara soo xam ne nii ay xeer ak lañ koy xam ne yàlla nañ ci yàlla musal loolu nag bokk na ci di lekk alal ju léwut rawatina alal jirim ñi moo tax sëñ Tuubaa bi ci masaalikul jinaan ne kat li ngay liggéey na lew waaye nag la jublu rek topp ci suñ boroom man a jaamu suñ boroom ni ko ni ko murid di waxee bëgg a jekku ndigal rek wal tastain biha ala taati taxwil karamata lal mamaati mais nañu si jublu topp yàlla kat boo ko defee da nga am karaamu mag saaboo saaboo tamit suñ boroom kon sëñ Ablaye ñu joxaat la kàddu gi jërëjëf ndeysaan ndeysaan sëñ Mor mbir mi am na solo lool am na solo euh, xam naa ni moom gàttaay daaru xasanaat rek waaye liñ fi war a mën a andi bari na lool ndax euh, foofu nga dugg rek euh, Euh, tey ji bari na ñu àdduna gëlëmal rawatina ci mbokki soxna yi ba ñuy tàppaas seen i borom kër ba ñuy dagg seen salaire yi borom kër di leen ko versé ñooñu xam nga ñoom ña ngay dugal ci seen biir ni nga waxee ni ku gàddu ku ko ëmbal sa borom kër aw yat sa doom rek nga koy xala dóor ah, ci bàyyi xel bu baax a baax ndax dama am euh, góor gu baax ndeysaan ku ñu wax fiñ euh, ko yaate mu nekkoon fii ci consul Milan bi mm-hmm. ñu seqoon waxtaan mu ni ma daal Diop ma ne ko Mbacke mu ni ma maanaam ci nasaraan sax ma ko làkk ni ma euh, euh, euh, mauvais arrangement vaut mieux qu'un bon projet maanaam lijjanti bu ñaaw daal moo gën sax nga dem ba tribunal di fa ñu jox la fa ndam te damooy faral di wax ni maanaam yow yow soxna si bu dee sa borom kër dalaa tooñ ñi ngi lijjanti ñëw sa borom kër nangu ni moo la tooñ ba wax ni ba waat ni moom jàpp na ni moo la tooñ xam nga fooy mujjee na man ko l'islam du wax lu mukk góor gi baalu ko àq yow jigéen ji la raamalal si borom ko baalu kon léegi sa sa dëgg googu fan la la féete kon lool war nañ ci bàyyi xel a baax war bàyyi xel bu baax a baax waaye suñu mor ba tey dikk andi fi eh, lu am solo muy jirim jirim xam nga suñ borom da koo tudd ba tàyyi baa ma ko ba tàyyi waaye tey ji gis nañ ni eh, ku góorgóorlu ba liggéey fi loo xam ne da ngaa jàpp ne sa njaboot xëy na war na cee a sutur ba yàlla di ko dogalam xëy na borom kër bi wàccu liggéey gis nañ ni lu mel ni ay nijaay lu mel ni ay ay ay loi lu mel ni ay gouvernement ñooy tëdd ci alal jooju jaar ci loi wala jaar ci xar ba foofu sax maanaam naawtal xel yi ñenn ñi ba lekk alal jirim jooju te teguñu ko fenn loolu sëñ Mor lan nga ci mën a soññ te bari na loolu ci jamono ji léegi. Euh, jërëjëf sëñ Ablaye loolu lu jar a bàyyi xel la lu jar xel la gis nga Serigne Touba dafa yërëm jirim su bind ci ay bayt yoo xam ne nii lu jar a bàyyi xel la kon mbokk yi ku gis ab jirim moo xam sa mbokk la. moo xam sa dëkkandoo la moo xam fu mu mën di doon waay waay joxeel sa àq ci jirim bi te mooy yërëm ko comme yaakaar naa ki nga yërëm danga ko sàmmal alalam ba bu ëllëgee bu gisul bàyyam tim am lu mën a suturloo looloo tax Sëriñ Tuubaa doon wax sëñ Ablaye Joob ne wal tubashir bil yataama jamian an si im aba um kulla xéeni Sëriñ Tuubaa nee na yow yàlla maa ngi lay ñaan nga fexe ba jirim yëpp fàtte naqar woowu ci seen bàyyi ndax man loolu nag ñun taalibe yi yaakaar naa suñu Ablaay ñun loolu sax ñoo ci war a taxaw ba jirim buñ gis ñu fexe ba du koy waajuram ndax sëñ Tuubaa noonu la ko ñaane woon na fexe ba ñu fàtte seeni waajur ay xéewal yoo xam ni day am ndax man moom sëriñ Tuubaa kon ñun taalibe yi loolu yaakaar naa taalibe bi moo war a taxaw sax loolu ci jirim bi mu bañ a ñàkk dara ki war jàng nañ fexe ba jàngal ko ki war a liggéey nañ fexe ba wutal ko liggéey nañ fexe ba xamal ko ay mbokkam nañ fexe ba yar ko nag yeeru lislaam ba nga xam ne bu ëllëgee bu nekkii doomu diw la ñu ne askay loolu day mbokk lu jar a bàyyi xel la xam naa waxtu wi dafa gàtt waaye lim lool rek doy na émission Daaru Hassanaat jëriñ yi sëñ laay ñoo ngi lay sant bu baax a baax ci wax dëgg yàlla ci yitte ji jërëjëf jërëjëf sëñ Mor xam nga foofu nga dugg ba tey ci biir bi rek euh, ma fàttali ni euh, am kër goo xam ni euh, ma nga ca Touba ñu tudde ko këru jëriñ ñi maanaam maam jaara kay kay wax dëgg yàlla sunu mbokk sunu xarit sunu wëlëri sëriñ naar xasida euh, amoon ci taxawaay boobu rek moo féete woon fii ci gox bi ñu féete euh, te jëwriñ bi sëriñ Basiru Diop ak euh, sëriñ Jong wax dëgg yàlla ñu am ci taxawaay sëriñ Modou Diouf ñoom ñëpp ñu am ci taxawaay bu rafet maa ngi ci soññe di ci lancer appel jar na ko dinañ ci amal beneen jataay ngir noonu ko ko waxee rek sëriñ Tuubaa wax ni maa ngi ñaan jirib bu nee daal fàtte waajuram te jaare ko ci man ngir xéewal yu ko wax dëgg taalibe yi war a taxaw ci loolu loolu ñu bàyyi bu baax kër googu euh, la fay dem ñi rek la war euh, te te lott nañ ci lompoñ nañ ci te wax dëgg yàlla ñun nasaraan si wala yéefar yi dañ man daal xaw ma demee waaye dafa mel ni ñoonu dàq dimbalante te ñoom sax dimbalante gi ñu def dafa ñëw ko ngir yàlla waaye ñoom dafa mel ni lislaam la ñuy doxal ñun nag xam ne ñu ngi wootewoo lislaam sëñ Mor daanaka daanaka daara lislaam defuñu ko ñu jéggal ma ci kàddu gi waaye wax daal mën nañ ko ak ah, ndeysaan ndeysaan waaye ñëpp ci poos bi di ci def daal dafa mel ni manqué na lool te loolu wax dëgg yàlla yaakaar naa ni yarub jullit la a doon sëñ Mor loolu xam naa boo bëggoon mënoon soññe tam ci kër googu nga xamante ni eh, wax mbokki jullit mbokki taal yi fépp ñuy déggee suñu kàddu ñu mën cee barkeelu ndax jigéen ñoo xam ne xëy na léeg-léeg ñu jur wàccu liggéey amuñu ku leen taxaw wala ñoo xamante ni maa rëy taal am ñu doom ba pare bëgg ko sànni ñooñu la ñuy récupérer di leen yar yarub diine di leen wutal turi l'islam di leen jàngal alxuraanul karim man a matal mënal seen bopp ñu doog leen a bàyyi ñu dem loolu yaakaar naa liggéey bu rëy la ku xam liggéey Serigne Saliou ku xam liggéey xam liggéey bu yoonu murit yaakaar naa war na cee jàpp a moom waaw jërëjëf sëñ Ablaye noonu nga ko waxee rek noonu la euh, Serigne Touba li doon def lépp da ciy roy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi mus Euh, benn jirim boo xam ne bi xale yi foo gone yi foo mu dem beru fële moom doom bu wéet yonent bi bi mu xam ne mbiram daf koo ñeewanti lool daal di ñëw ne ko xanaa bëggoo man ma nekk di sa baay Fatima nekk sa sœur loolu mbokk yi lu jar a bàyyi xel la yonent bi wutal ko ay yére yu rafet yu bees wutal ko ay dàll solol ko saf ko ci yonent bi mu demee ba wàññeekuwaat dafa fekk xale bu nekk ci biir xale ya di fo te yonent bi mooy suñu royukaay laxad kaana lakum fi rasulillahi uswatun na loolu la yàlla wax yonent bi mooy seen royukaay gis nga ñu baax ñëpp dim ni ñu jële jirim yi gis nga jirim yi nga xam këru jirim yi ni nga ko waxee ci Tuubaa muy lu jar a bàyyi xel ndax ñun ci gëstu yi ñuy def ak mbokk yooyu nga xam ne ñoo yor liggéey foofu ci Touba eh, te amaloon nañ ñoom sax ay jataay yu bëree bëri eh, dem na ba nga xam ne kat laay lu jar a bàyyi xel la ndax ci Touba googu amoon na fa ku fay liggéey boo xam ne nii ci hôpital Matlaboul Fawzayni ab chrétien la te nee nañ sëñ Mourou Moussa lañ ko tudde woon hmm. waaye ba ko ba mu juddoo. baayam gaañu wala yaayam gaañu ñu jox ko suñu mbokk yi ci des ñu yar ko jàngal ko seen diine ba mu jël diine jooju nag ba dem ab docteur nag ba ñëw Tuubaa di fa liggéey ci hôpital ba nga xam ne boo demee turam fi nii Moustapha nee nañ moo fa nekk waaye Robert lañ koy wax sama mag moom la tudd moom moom la tuddale boppam loola kon jullit ñi am nañ responsable mag loolu sax day mel ne jullit ñëpp kon am nañ bàkkaar bu fekkee xam nañ kon loolu kon war nañ cee gën a taxaw bu baax a baax Sëriñ Tuubaa kuñ musa wax ne diw dafa baax bu wax ku ko jur waaye ana ku ko yar lay laaj kon ñu fexe ba doomi jigéen ñooñu nga xam ne te kenn xamul kan la ñun ñu ngi dund xamuñu ba xam tey lañ fiy jóge woon suba dañ fee bàyyi suñu njaboot ñooñu tamit ñu bàyyi xel ne ñooñu dañ leen a war a yar yarub lislaam ba nga xam ne ñoom ëllëg dañuy taxawal lislaam bi waaye dem ba nga xam ne kooku sax def na bay day wax ne dégg naa ne euh, ñi def suñu mbokk yi damay bañ a tooñ kenn waaye suñu mbokk yooyu sax ñoo gën a baax jullit ñi ndax budul woon budul woon ak woon ak ñoom budul woon budul bu yàgg ndax bi ma bi ma juddoo dañ maa sànni fële kenn topp toobu ñoom ñoo ma jël topp tooma jàngal ma yar ma ba wax am sama liggéey léegi kon diine ji moo gën diine jee waaye gis nga fi ko andiwaat ngir ngir ngir ngir ñun dóor ab yarub yarub yarub gàcce rek ci ñun ñu and maanaam suñu defaat mu ñëwaat ba Touba di fa liggéey. waaw dëgg la wallaahi dëgg la ñaar la sax de du kenn rek de ñaar la ñaar la woon. ñaar la woon loolu nag kon jullit ñëpp war nañ cee jëlee am njàngat sëñ Ablaye ci ni nga ko waxee woon jirim yi ak néew doole yëpp ñu leen di bàyyi xel ndax Serigne Touba bind na contraire lekk lu araam kon nga wut lew nag di ko jox ku baax di ko jox nit jullit ñi Sëriñ Tuubaa nee na moo ëpp ab yool nga dem tabax junniy juma wa luqmatun tasuddu batnal jaa'i afdalu min binaa'i la Sëriñ Tuubaa wax benn tiwub nga teg ko ci biiru ku xiif Sëriñ Tuubaa nee na moo ëpp yoolu tabax junniy juma waxu jàgg de junniy juma la wax kon loolu lu jar a bàyyi xel yaakaar a ne kay tabax juma kon du lekk xale li jàmbur suñu Ablaay jërëjëf loolu jàng naa ci rek nii Eh, bul jàpp ne rek lekk alal jàmbur moo yóbbu nit ci safaan waaye man ngaa yor sa wërsëg suñ borom bind wërsëg woowu am keneen kum ci boole yow ngay toog di lekk ki nga dendal amul lu mu lekk am ndeysaan ak njabootam amuñu lu mu lekk yow nga mën a denc ren ba déwén di lekk yaa donte yaa ko ñàkk loolu yi mën ngaa yóbbu sawara ndax dangaa bàyyiwut xel ci ni wërsëg bi la yàlla jox am na ñeneen ñu ci moom da ko jaarale ci yow loolu ñu bàyyi ci xel baax kon ñi may def rek sëñ Mor mooy delloo la kàddu gi nga indi sa kàddu yi euh, ziar ak kàddu rek ndax naa ñu yëkkati jotaay bu beneen incha allah. waaw jërëjëf sëñ Ablaye xanaa di la sant rek ci dalal gi ndax na ma sama sëriñ waxoon rek ba ma ko waxee mu ne ma man maa lay sant yow mi may liggéeyloo waaye sëñ Ablaye Diop daal raasinaat ñun ñoo lay sant bu baax di wax ne sawar nañ lool ci liggéey ak yow ndax liñ ci yaakaar rëy na lool mooy ngërëmul sëñ Tuubaa kon yàlla nañ ko bokk ak auditeurs yëpp auditeurs yi rajo bi rawatina nag sa auditeurs yi bopp yi nga xam ne dañ lay bàyyi xel te mën ñu jërëjëf suñu Ablaye. ndeysaan jërëjëf sëñ Mor ñoo ngi lay ñaanal yow tam fan nga gudd ak wér yaram ñaanal la liggéey bi ngay defee itam suñu borom kattanal la defal la tawféex ba mu dëppoog ñi nga xam ne noonu la ko sëriñ bi bëggee te sëriñ bi liggéey loola ñoo ngi lay sant bu baax a baax di la ñaanal lépp loo xamante ni wax dëgg yàlla aw la di la ñaanal lépp loo xamante ni ngëneel la yàlla na ko ci borom teg ci say loxo tamit jëriñoo ko yàgg ci njaboot gépp barke borom loolu moo doon émission bi Daaru Xasanaat xam naa ñu ngi jégg bu baax rek ci gàtt gi ndax euh, jamono ji rek moo xat waaye bu ñu sañoon euh, lépp loo xamante ni lu baax la aw yiw la bu ne toq suñu nopp rek am jàmm dañ leen ko digtal ba ñëpp bokk ci jariñu ndax ñi Sëñ Fallu daan waxee rek dama ku bëgg lu baax la bëggal ko ñëpp te it ngottuma waaye wax dëgg yàlla moo tax rek daanaka soññ bi toujours ngeen di dégg suñu du war a wax waaye du mën a wax waaye du leen ndax waaye lu dul rek eh, ñun ñëpp ñoo bokk li ñuy liggéey muy tool bi te Serigne Touba yaatu na yaakaar naa ni Serigne bi mel na ni jant bu am kenn ku naan sa moroom may ma ma xool kon kenn ku nekk fa nga nekk jàppal ni yaa ngi liggéey Serigne te fu waay nekk waaye ndeysaan bul xeeb mu nekk xamoo ba xam moom moo ëpp ngërëm mbir kon jàppal ni rek lu waaye nekk te askane lu ko sëñ bi bu dee da ngaa gis ne jàpp nga ne am na lu ci ayib waaye am na ci ñuul waaye wéetal ak moom waxtaan ak moom rawatina bu dee ci biir mbokk la te xam na ci loo xamante nii daanaka bu dee ay kilifa dañ koy def sax dañuy dañuy daal di jaaxal taalibe yi la ka nga xamante rek moo di sëriñ Mouhamadou Lamine Gueye mu baax ma waxoon sëriñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma ak sëriñ Mbacke Madina ba leen fa Cheikh Moustapha Al Karim yabalee ban yenn fa ba ngoon ba ñuy dem da leen woo ba ñëw muñ leen rek waaye na ngeen doon ay sëriñ ngeen doon ay sëriñ rek da ngeen ci gis yi taalibe waaye bis ngeen doonee ay buur day ay dak rek ngeen di fi gis moo ne day sëriñ Cheikh ku ko xam mën a xam ne mënoon naa doonu buur ndax ci la joor la ci askanoo waaye nag Cheikhul Khadim daa gën lépp moo tax mu ne ko bu ngeen doonee ay sëriñ daal da ngeen fi gis ay taalibe waaye bu ngeen fi doonee ay buur ay dak dong ngeen di gis kon nag ñi nga xamante ni dañ leen di tudd di tudd sëriñ bi ñu bokk sëriñ bi ci deret kon it am na loo xamante ni yenn ñi bu ñuy yëkkati mukk kàddu wala nit dikkati yow di la wax ci loo xamante ni sa rakk ci lay wax sa doomu bàyyi ci lay wax nga ànd ceeg moom te moom yaakaaru lu dul li nga koy defar mu wutali wax dëgg yàlla bu ñaawoo di am yow yaay ñaawoo ak sa tey bu boobaa li ma ko waxee rek taalibe yi dañuy dañuy dañuy jaxasoo doodu ñu xam fu ñuy taxaw kon yàlla ñu yàlla musal seytaane ndax li ci bari rek daanaka bakkan képp a koy indi ak ak waaye seytaane sax du ci dara waaye ñu seetaat rek xool lan lañu sëñ Tuubaa jaral ak lan la sëñ Tuubaa liggéeyal ndax bu dul dem ji wolof nasaraan te ko bilaay ñëpp dem niiraane jar na kenn ku ne wekk Serigne Touba ak sàmm yoonam wi sàmm lim fi bàyyi te mënuñu ko yàq ñu daanaka ñoo ci le ndax Serigne Touba moom léppam jar na kon maa ngi fàttali toom bi nga xamante ne moom la doon jàngat ànd ko Serigne Mor Sylla Taïf muy ko tedd ki nee na baraan na ku dugg ci bàmmeel boo ko laajee lu tax ñu dee la caw mu ne la lu ma waxoon ci àdduna la waaye baraan na ku daaju ca biir sawara boo ko laajee lu la fi andi mun ni la lu ma lekkoon la kon yàlla nañu yàlla defal li ñuy wax rek euh, xalaalan tayiban waaye yàlla nañu yàlla defal xal bu salim muy xol bu sell bu mucc ayib boo xamante nii buñ taxawee yomal xiyaam ak jàmm rek yàlla na yeex ñu am ngërëmal Cheikhul Khadim ñoo ngi sàkku tam ay ñaan di yelwaan ay ñaan ci yéen képp koo xam ne yaa ngi dégg suñu kàddu nga bàyyil ñu xel sëriñ naar xasida ku ko yàlla mën loo rek ñoo ngi lay yelwaan nga def faatiya bu sell eh, ubbee ko salaatu ala nabi defal ko ñeent fukki lixlaas ak benn tëjee ko salaatu ala nabi ak xasida bu waay man wala bayitu xasida bu waay man ndax lu ku bëggoon xasida la ba boo ko daan mas a ñaanal sax boo tuddee boo dee jàng alxuraan ba yegg si bayitu alxuraan da ngay gis bayitoo xasida da ngay gis ni muy jaayoo kon ñoo ngi leen di yelwaan loolu faatiya faatiya ubbee ko salaatu ala nabi defal ko ñeent fukki lixlaas ak benn tëjee ko salaatu ala nabi ak bayitu xasida mbaa xasida bu waay man def ko addi sëriñ naar xasida ñoo ci ko ciy ziare bu baax di ñaan suñu borom fa nekk suñu borom dolli ko yërmande fa mu nekk yàlla ko gërëm fa mu nekk yàlla na dend ak Cheikhul Khadim yàlla na dend xasida yi barke Cheikhul Khadim ñoo ngi leen di ziare bu baax di leen baal wax di leen baal ak di ñaan rek suñu borom dolli xéewal ci jullit ñi yàlla suñu borom wàcc jàmm ci jullit ñi yàlla suñu borom wàcc tawfeex ci jullit ñi baa ñu xéewal sutura ak teranga ak wërsëgul la wek njabootu barkeel njabootu dundal islam njabootu ëttu islam bi jaay seydil awalina wal axirina seydina wa mawlana muhammadin barkeb maam Cheikh Ibra Fall ba muride asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh waa aaxirati émission la bi am ci rajo bi day yokk pas-pasan gëm daaru xasanaat émission la bi am ci rajo bi day yokk pas-pasan gëm daaru xasanaat émission la bi am ci rajo bi day yokk pas-pasan gëm xasdaan looy bu tuuba mondu looy bu tuuba mondu looy bu tuuba mondu looy bu tuuba mondu looy bu tuuba mondu looy bu